internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su xibaar yu wér ci réew mi ak ci réew. SeneInfo. asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci SeneInfo point net ak SeneInfo international suñu différentes plateformes yi. Euh, ñu ngi fi taxaw ak euh, ku ñuy woowee coach Adama bokk ci mouvement bii di DS 2026 agissons maintenant. ñu fas yéene waxtaan nak ñoom ci seen concept boobu ak ana ñoom naka lañ gisee ne noonu la ñu war a développé réew mii di Sénégal loolu moo leen tax a jóg balaa muy sori rek ma bàyyi ko mu nuyonteeg mbokk yi. salaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu euh, man maa ngi tudd coach Adama ñu ngi yëngu ci benn mouvement boo xam mouvement à politique la lu ko tax a jóg mooy développer le Sénégal d'ici deux mille vingt six. léegi euh, suñu objectif dafa nekk euh, juróomi mbir mooy ni ñuy fexee Sénégal nekk dëkk bu set. seet nag suñ ko waxee c'est quelque chose de général seetal kër yi seetal mbedd yi seetal jikko yi seetal xel yi fexe ba doomu aadamam si wér-gu-yaramam sax dañuy bëgg nga seetal ko si lépp luy lore ñaareel bi mooy ñu am culture d'embellissement mooy di rafetal suñu kër yi di rafetal suñu quartier yi fu laaj peinture ñu peinture fu laaj fleur ñu fleur ba pare nag ñu am ce qu'on appelle culture d'entretien fonk lu ñuy wax le bien public suñu réew yi lu tax ñu teg ne développé wuñ mooy fonk ju bien public suñu kër yi dañ koy tabax ay milliards am ay kër yu rafet mais fonk ñu mbedd mi donc fonk bien public dafa am solo moo tax dañu war a am culture d'embellissement mooy rafetal bu rafetee lay pare dañ ko war a sàmm Afrique dañuy financé ay milliards ci ay tali ci lu mën a doon après bàyyi mu yàquwaat donc culture d'entretien dañu war a fexe ñu am ko état bi teg lu ñuy wax ay taxes raisonnables mooy ay taxes yu jaadu muy impôts yi muy foncier bi fépp foo dem mu TVA bi mu nekk loo xam ne lu jaadul loolu dana tax nit ñi danañ fay te duñ fa nekk di kera koromporaate kon loolu day xeex dëgg-dëgg nger li ñuy mujjee mooy lan le plein emploi mooy nit ñi am liggéey am liggéey nag suñ ko waxee jeunes yi aussi dañu war a gëm liggéey olof dafay wax ne ku jekkul du bëri ba bañ donc doomu aadama même boo amagul liggéey buñ la proposé stage jàpp ci soo gisee liggéey noonte li lay fay arrangé gu la jàpp ci nga amee ci expérience plus ngay gis lu gën ngay dem ci loolu kon suñ demee ba dëkk bi rafet set nekk dëkk boo xam ne am nañ culture d'entretien état bi teg ay taxes yu jaadu nit ñi am liggéey mën nañu wax ne oui nous sommes développés léegi ñun dès 2026 suñu slogan mooy agissons maintenant mooy ni ñuy jëf léegi am bu ñu nee 2026 am na ñoo xam dañuy jàppale ne dafa jege fekk objectif waru sori lool bu soree lool du sa objectif objectif dafa war a jege nga nekk ci di ci liggéey kon grosso modo ñun loolu lañ bëgg mooy d'ici deux mille vingt six Sénégal nekk dëkk boo xam ne dëkk bu développé lay doon. bu mmh. la déggee daal kon développement du lu ñuy xaar rek ci ñoom politique yi. waaw wante ku ne da war a dugal loxoom. ñu ngoog lii nii mouvement apolitique la mooy ñun ay citoyen lañ suñu réew yi bokk na ci lu ñu tardeel ñun lépp dañ koy xaaree état réew citoyen buñ dajaloo ñoo ëpp doole état kenn ku nekk da ngay nekk si li nga war ne bu ci état jàppee baax na su si état jàppul ñu defal ko suñu bopp. moo tax dañuy créer ay concept concept bi ci concept yi am ci la bokk am na bu ñu tuddee nu pouvons le financer nous pouvons le financer day wax ne sama kër ak fu sore sama kër lépp ci sama kër nañ nañ jëf léegi mooy suñ fexoon ba suñu koñ yi ñuy dégale suñu xaalis bu ñu am as néew di ko peinturer suñu façade yi di ko defaree suñu koñ yeeg suñu boulevard yi fépp ay rafet parce que doomu aadama yàlla may na ko mu am lu mu mën a participer ci développement réewam ñun waa DSD 2026 mouvement citoyen apolitique la dañoo jàpp ne développement état nu ci war a jugee noonu lañ ci war a jugee ñun ñi nga xam ne ñooy population bi kon population bi bu lëkkaloog état day tax développement gën a gaaw kon nag ñun kenn ku nekk li nga mën na a def sa kem kàttan seetal sunu kër yi seetal sunu quartier yi fexe sunu quartier yi rafet loolu mënal nañ ko sunu bopp bu ci mairie bi jàppee baax na su ci société yi jàppee baax na kon nag ñu dañu war a jàpp ne kenn ku nekk li nga mën na nga ko def sax kéem kattan loolu moom mooy conscience citoyenne loolu mooy culture du développement bëgg lu baax ñun daal ci bëgg lu baax fexe kenn ku ne def lim mën ci kéem kattanam ci loolu lañuy ñuy dox. Mhm. ndax tey euh, sénégalais yi euh, ñu ngi ñu ngi gis seen bopp ci moment boobu leen fekk si ñu ngi sosee léegi. waaw ñu ci gis seen bopp parce que boo demee ci réseaux sociaux yi lu mel ni TikTok boo demee foofu des 26 agissons am nañ plus de 1400 yoo xam ñu ngi ñuy suivre. soo demee ci Facebook soo demee LinkedIn soo demee lu mel ni WhatsApp am nañ ay groupe foofu yoo xam ne ñun tamit dañuy yëngu ci wàllu doxal économie bi moo tax ñu créé benn communauté bi ñuy wax croissance collective day tax kenn ku nekk ci li ngay yëngu ñu fésal ko ñuy def business suñu biir en même temps di def ay impact ci plan social di setal ay quartier di naayisal ay quartier parce que ñun jàpp nañ ne daal ñu ñëpp suñ ci jàppee dëkk bi day jëm kan ku bëgg a jokkoo ak yéen tey. Euh, léegi mën nga jokkoo ak ñun si 77 526 22 00 boo demee TikTok nga tapé 226 Agissons danañ fa jàngale nu amee xaalis danañ fa jàngalee ñu war a participer pour dëkk bi développer. ba pare am nañu aussi benn plateforme boo xam ne base de données la bu nekk Telegram dañ fay def plus de 300 business expliquer les sources de financement au Sénégal mooy boo soxlawaan xaalis foo ko mën a jëlee ak. ak ay contacts yu bëri ak ay vidéo de formation ak lépp mi ngi foofu kon ñun suñu jubluwaay daal mooy yombal ni ñi mën a def business entre ñoom parce que plus dëkk bi di jax plus dëkk bi di dox mm-hmm. Mm-hmm.